bi ñu dencee ki nga xam ni mooy euh, maanaam euh, kii di Hissène abre nekkoon fi njiitu réewu Tchad yàlla def tey euh, dogal bi wàcc ci kawam ñu denc ko fii ci njiitu fii ci armeeru Bakhiya ñu gën ko xam ci cimetière musulman bu Yoff kii di monsieur Yakham mbay nekk kenn ci njiit yi maanaam kilifa yi dëkk bi digal lool ki nga xam ne mooy njiitu réew mi son excellence monsieur le président Macky Sall tey ginnaaw bi nga jógee ci denc gi ñu denc kii di Hissène Habré lan nga yëg bon yëg métit parce que Sénabre doomu aadama la woon benn doomu aadama ba nekk bu ko wuyu ji boromam rek métit la mu boole si doon julit man nag métti woon na ma parce que ñaar fukki at ci ginnaaw parce que ndem si yàlla ko Touré moom ma boole woon moom donc danaa doon saafonteeg moom bon ba nga xam ni xam nga ñun ñëpp euh, ay doomu aadama lañu mais man li ma préfère retenir ci seen abré mooy lu positif C'est-à-dire c'était un, c'était un grand Africain. C'était dans nos discussions, quand il parlait de l'Afrique, il disait mon pays. Donc, euh, il considérait l'Afrique comme son pays. Et je pense qu'au fond de lui-même, peut-être à différence entre nous, Soulon, Kotiat et Sénégal. Parce que ben, pour moi. Donc, euh, je retiens de lui un grand patriote, un grand guerrier, c'est vrai. Un homme, Bohamni, il avait un amour quasi tyrannique pour son pays. et il a consacré toute sa vie à la défence de ce pays. Donc, je retiens, essayons de retenir le côté positif. Taïsen Abré, c'est l'essentiel. Et comme que meloon am na loo xam ni ay considération politique amu ci. ku ma siqon le waxtaan euh moy yedd te boo bobu nekk tout tank type journaliste. Donc cër la won euh, nga ñëw gunge ko ci dernier demeure am. Mhm. loolu mooy suma présence fii.